juróom-ñeenti fan ci weeru août ci atum 2024 ni ñu koy baaxoo di defee ànd ceek rédaction bu télévision Futur Média soir d'info te jii ci ajuma ji ñu dalal kii di baaba kër gàkku di coordonnateur euh, du forum des jeunes ak euh, des jeunes convergence intergénérationnelle ci mbirum scout maanaam scoutisme la ñuy waxtaanee tey euh, ndaw ñi ak it lii nga xamante ne ba ñu nekkee ndaw ba léegi dañ ko daan gis ci école yi waaye léegi daanaka gisatuñu ko lu ko waral ñoom nag euh, ci seen forum boobu dañ ko organiser ci organiser woon forum bu mag. Euh, diggante la 7 le 8 ak le 9 août bi tey jii la jeex ñu ñëw rek di def daanaka bilan tënk forom boobu lan moo ko waral ak lan moo ko sos ak it tamit fan la ñu jëm ci at yi ñu jëm ndaw ñi dañu am place bu am solo lool ci réew mi ndaxte bu ñu xaymaa sukkandiku yi tamit ci waa ANSD li ëpp ci réew mi fi mu ne ci ay ndaw la yoo xamante ne amaguñu fanweeri at ak mu nekk nag tey jii euh, waxtaan bu am solo mu war a bu ñu war a séqal kii di Babacar Gakou Babacar ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. Euh, maa ngi lay fay Mamadou. Euh, ñu li ma ko waxee sànq scoutisme la ñuy waxtaanee mooy euh, mbirum euh, éclaireur éclaireuses yeeg éclaireurs yi lan mooy scoutisme boo xam ndax dañ daan nañ ko gis ci l'école yi bu njëkk ba bi ñu gënee nekk tout tànk waaye léegi dafa mel ni bu bu amee bariwul mm-hmm. Eh, jërëjëf Mamadou ñoo ngi lay jaajëfal di la nuyu yow tamit di la sant bu baax di sant waa TFM pour opportunité bi ngeen ñu may tey mhm. ñu ñëw présenter suñu mhm. mouvement bi nga xamante ne moo ngi bokk ci organisation mondiale du mouvement mhm. a jóg mooy former ay ndaw ñi nga xamante euh, seen société aussi bu lu ko tax a jóg tey mooy tàggat xale yi ci problème yi nga xamante ne tey dañ koy rencontrer muy changement climatique muy éducation muy formation muy insertion mm. mais surtout l'éducation à la citoyenneté donc loolu daal moo tax a jóg scoutisme ngi dund effectivement moo ngi dund c'est dayo bi euh, mu amoon moom la am ba léegi parce que ñu ko xam ñoo koy xam ba léegi parce que estime yàgg na bi mm-hmm. association bi ñu créé 1907 mm-hmm. moo ngi dugg Sénégal en 1937 nekkul association bu ndaw mhm. mais il faut comprendre que actuellement ak l'émergence des nouveaux mouvements de jeunesse ak association de quartier donc association yu bari gëdd bu ñu leen joxul bu jëkk joxatul leen ko mais scoutisme tey moo ngi dund ba léegi mhm. et au niveau Sénégal ñun on est plus de 15 000 éclaireuses éclaireurs Sénégal au niveau au niveau national nekk ci 14 régions régions yëpp nekk ci 14 régions yu Sénégal yëpp waaw wax nga wax nga sànq lu am solo yéen a ngi jóge ci forum boo xam ne ñetti fan la tey ji la jeex Euh, lan ngeen mën a tënk ci forum boobu nga xamante ni euh, amal ngeen ko fii ci Ndakaaru euh, waaw tey tey paree lu ñu naan forum des des jeunes ak convergence intergénérationnelle mhm. donc forum boobu noonu avant moom am na lu ko jiitu parce que actuellement au niveau national daa am lu ñu naan convergence de l' association des éclaireuses éclaireurs du Sénégal mhm. donc mu nekk ndaje bi nga xamante ne tey dañoo woo xale yi nga xamante ne ci association bi lañ bokk nekk a au niveau national. Mhm. donc sites yi ñoo ngi ci Kennedy ñoo ngi lycée Blaise Diagne ñoo ñoo ngi ci place Martin place de la nation. Mhm. donc moom ay activité civique activité citoyenne ay reboisement ay sensibilisation ay don de sang mais aussi y un village mondial de développement bi nga xamante ne ñoo ngi koy def place de l'Obélisque donc di exposer lépp loo xamante ne tey xale yi ñoom ñoo ngi koy réaliser en termes de citoyenneté. Mhm. léegi nag bu ñu ñëwaatee ci forum des essai lu ñu naan forum des jeunes donc mm. finalité forum des jeunes boobu tey mooy ñi am xale yi tey ñu mën a proposer ay solution ñu mën a proposer tey stratégie ci comme comme ça léegi ci programme yeeg politique yi ñu mun leen ciy jël en compte mm. dire la finalité aujourd'hui c'est que d'amener les jeunes à proposer des stratégies mm. pour vraiment impacté sur les politiques et programmes à l'échelle locale. Mm-hmm. à l'échelle nationale à l'échelle internationale parce que tey comme wax nga ko sànq jeunesse tey Sénégal mënuñoo des ginnaaw parce que soixante lu représente 65 pour cent ci population. Mm-hmm. donc dafa nekk force bu xamante ne tey force visible la bu am mm-hmm. doole. donc ñun dañ ko dañ koo teel a xam parce que mouvement de jeunes la pour les jeunes par les jeunes avec l'aide des a ñi nekk ay leader ñi nekk ay ñi nga xamante ne tey mën nañ positionner au niveau communautaire pour andi ay transformation waaw pour bokk ci euh, mouvement bi mooy scoutisme éclaireuse éclaireuse. je pense que question question bu pertinente moo ngi noonu. waaw nan nan ngay def et il faut comprendre que c' mouvement bénévole et volontaire. Mm. bénévole dans mesure où amul fay dara. Mm. man maa ngi ciy liggéey am naa sama liggéey à part mais maa ngi ñëw di liggéey ci association bi dafay ñu ma ci dara. Mm-hmm. volontariat mooy booy ñëw yaa indi sa bopp. Mm-hmm. donc nag on est au niveau national te région boo dem département boo dem tey commune boo dem am na association des éclaireuses éclaireurs du Sénégal. Mm-hmm. xale yi mhm. am na douze dix huit ans mooy ñi topp ci xale yi ñi leen di woowee la verte mhm. am na ñoo xamante ne dix huit ans la ba vingt deux ans mooy la mhm. blanche donc à vingt deux ans mooy ñi nga xamante ñoom ñooy magu association bi donc nag niveau bu nekk ak programme bi nga xamante tey moom nga soxla programme bi nga xamante tey xale yi soxla nañ ko ñoom ñu propose ñu ko ñi def ko programme national après exécuté ko au niveau des yëpp da ngeen ñëwoon Dakar

dafa développement activité de citoyenne mu nekk euh, Babacar Gakou di euh, jiite nekk ordinateur Euh, du forum des jeunes ci mbirum euh, convergence intergénérationnelle euh, mooy association éclaireuse ak éclaireurs yi nga xamante ni ci mbirum scoutisme la ñuy yëngatu ñu ngi ci doon wax gannaaw ab forum bu mag bi nga xam ne amal nañ ko tey jii moo nekkoon bis bu mujj bi waaye ñu daal di tënk rek mbir yi ñuy yëngatu ndaxte saa su ne comme ni ma ko waxee sànq dañ daan di gis ci l'école yi nan lañ ci daan bokkee moom la joxe léegi explication waaye ëllëgu association bi maanaam ëllëg gi surtout ci suñu tund bi fii Afrique. je pense que tey ëllëgu association bi moom mooy ëllëgu réew mi. Mm-hmm. parce que association bi day jouer benn rôle bu fondamental ci ci ci ci ci

donc tout ce de jeunesse et de citoyenneté. mais est que obligatoirement da war a nekk scout scout parfois wala non scout parce que ñun on dans l'éducation informelle bi nga xamante tey. Mhm. formation informelle la boo xamante tey képp koo xamante nit nga citoyen nga gis nga sa bopp. Mhm. donc war nga koo mën a war nga ko mën a appliquer muy valeur yi nga xamante ne tey c'est fondamental. Mhm. parce que bu ñu nee l'apprentissage par l'action méthode bi nga xamante ci groupe maanaam nga boole ay nit ñi ci groupe bu ndaw pour ñu liggéey la vie en plein nit ñaa ngi koy def donc ay valeurs yoo xamante ne tey bu ñu ne développement communautaire méthode scout la bi nga xamante ne tey ñoo ngi koy appliqué ci suñu activité mm-hmm. et gis nañ organisation yu bëri yooyu loolu la ñuy appliqué aussi ci ci i programme am na solo ku wax xale yi wax ndaw ñi waaye wax tamit nguur gi ku wax nguur gi xalaat tamit ci euh, jëwriñ ci yor wàllum ndaw ñi est-ce que ñoom gis nañ ci ak njàppandal ci seen ñetti fan yi est-ce que gis nga leen daje ngeen ak ñoom wala waxtaan ngeen ak ñoom avant ak i tamit ci jamono ji nga xam ne yéen ngi woon ci seen forum bi ak fan la yëf yi mën a mën a mën a dem waaw gis nañ gis nañ ci gis nañ leen bu baax ci programme yu ñu yore parce que ñun avant la convergence on a rencontré le ministre de la jeunesse mhm. donc am na ay promesses yu mu def gis nañ promesse yu mu def aussi am na lu ñu ci jot a réaliser gis nañ aussi seen taxawaay parce que il faut comprendre que association des éclaireurs dafa nekk association bi nga xamante ne tey même au niveau étatique on est on est bien représenté et on bien connu aussi mhm. et dafa am ay recommandations yoo xamante ne tey ñu ngi koy def dafa am ay anciens scouts quoi waaw tey boo est-ce que am gouvernement yi jot a jàll yëpp bu amul benn ba ñaar dina am ba ñetti scouts mhm. léegi juste rappeler que ne waaw bii ni am na. Ah, bii am na ay bii bii am na ay ay ay scout ay eh. scout yu bari am na ay éclaireur d'ailleurs euh, kii bi dazu ministère de la de la jeunesse bi ngay wax.

am na jeunes yoo xamante ne ñoo ngi jógee ci les jeunes étudiants catholiques ñoom ñëw nañ mhm. on fédéré on a de diversifier vraiment les les associations de jeunes mhm. pour ñoom ñu ñëw tey ñi ñi waxtaan ci programme bi nga xamante ne bu ci état Sénégal nangoo jël recommandation yi je pense que nañ am ay jeunesse bu dévoué bu engagé loolu laa bëggoon ñëw sax mooy est-ce que forum bi day tax nag mu nekk benn départ boo xam da leen jëmale ci politique politiques mhm. les programmes qui concernent la jeunesse et les projets qui concernent la jeunesse mhm. léegi nag ñun dinañ bind dinañ xaatim proposé ko ñi nga xamante ne tey au niveau exécutif ñoom ñoo war a mën mais newul tey lañ ko tàmbalee est éclaireuse Sénégal yàgg nañoo proposé tey état mhm. et yi nga xamante ne tey mën nañu ko appliquer même boo demee ci éducation populaire tey hmm. pratiquement la méthode scout la ñu appliquer tey association bu fi munti judd parce que yàgg na aussi depuis 1907 dañ hmm. ko créé donc association bu fi munti judd mais boo inspiré ci modèle scoutisme bi yaa ngi xool scoutisme tey lu lu muy def nga koy def et ci gën a simple mooy le bi nga xamante ne tey état mu ngi ciy liggéey et duñ ne réussir ci mais ba tey am na jéego yu des. Mm-hmm. alors que ñun le volontariat réussir nañ ko bu yàgg. ba mm-hmm. ba ko te aujourd'hui si on arrive vraiment à promouvoir le volontariat des des jeunes a. dinañ la jeunesse mais ci wàllu am solo est-ce a jàkk euh, rencontrer ndaw ñi rawatina ñuy yëngu ci wàllu scoutisme. effectivement am nañ ci am nañ ci wàll dañuy liggéey ak ñoom parce que il faut comprendre association bi nu mu amee de l'autre autre communautaire bi nga xamante ci composante association bi la bokk mhm. am na benn ONG bu association bi moom bu ñu naan jeunesse développement mhm. moom moo koy mettre en œuvre donc jeunesse développement tey day mettre au niveau national des politiques et programmes yi nga xamante ne mhm. ça l'éducation et l'IEF pour la promotion de l'éducation ci structure boobu dina ñëwaat ne école yi léegi gisatuñu leen léegi nii maa ngi laajte sànq boo xam ne scoutisme bari woon nañ am na amoon nañu euh, technique yoo xam ne dañu doon dugg ci lekkool yi commencé ko école primaire mhm. yéeg lycée ba yegg école secondaire mais am na format yoo xam ne dañ ko doon def yu am solo ba ñu ci bari doon ci dugg mais léegi daal dafa mel dafa gën a wàññeeku waaw duñ ne sa am ngeen politique boo xamante ne di ngeen ko def ba Mhm. delluwaat ci l'école yi loolu lañ bëgg tey suñu sañoon tey école sénégalaise boo dugg di fekk benn unité scout mhm. parce que avantage école yi am unité scout tey et j'en pour lancer même un appel mhm. tey bu amee benn unité scout dans une école unité scout boobu noonu moom mooy réhabiliter école bi moom mooy améliorer cadre de vie et cadre de vie nga xamante ne tey xale yi bu ñëwee dañ santé seen bopp ci école yi la preuve en nekk xale tey bu ñu ci nekkee conditions yu baax écoute ñoo koy def donc li nga wax aussi am na solo donc peut-être aussi seen politique ak programme dañuy fexe xool ba xam nu ñu fexe ba am maillage au niveau national a occuper école yëpp mais pratiquement dafa bari mhm. mais nañ fexe ba xool yi école yoo xamante ne def stratégique ay modèle lañu mhm. comme ça boo fa réussir ñeneen ñi dañ ko mën a démultiplier Babacar Gakou mooy coordinateur bu forum des jeunes ci mbirum euh, convergence intergénérationnelle maanaam mbirum euh, scoutisme euh, muy yi mu ciy doon waxtaan gannaaw boo xam ko ñetti fan tey moo nekkoon bis bu mujj bi ñu doon def ab xayma ci ndaw ñi ak fépp fu ñu jógee ci région yi comme ni mu ko waxee waaye tamit ëllëgu scoutisme fii ci réew mi dooy tamit nan lañ mën a defaat ba delloo ko ci l'école yi euh, comme na mu meloon démb nekk na lu am solo waaye ku wax ndaw ñi tamit Babacar wax euh, lii di euh, numérique mhm. maanaam léegi jumtukaay yu xarala yi yéen yan yan jéego ngeen ci def loo xamante ne war nañ gis ne war na gën a mën a yaatu maanaam éducation boo xamante ni day nekk njàngale mu mucc ayib ci mbirum éducation numérique je pense question boobu dafa am solo parce que recommandation yu ñu doon def am na benn panel bu porté sur l' éducation sur l' économie numérique et mm-hmm. solidaire je pense aujourd'hui tey Sénégal numérique bi dafa avancé. Mhm. digital dafa avancé. Mhm. je pense que ñun tey war nañoo teel a anticiper ci éducation wu xale yi ci lu jëm ci numérique notamment seen protection des données. Mhm. mais ni ñu koy utiliser parce que tey ku nekk mën na cee baax ku nekk aussi mën na cee bon. ñun dañoo teel a xam loolu moo tax dañoo teel a anticiper loolu et une équipe nationale. bi nga tey moom moo chargé la communication du branding mais aussi du numérique ñoo ngi ci ne xale leen di former ci loolu. ñoo ngi leen di ñoo loo xamante ne tey ci numérique la. mais xam nga dafa des ba tey au recommandation yi génn na ci il faut que état dès le bas maanaam dès élémentaire bi. Mhm. ñu commencé tàggat xale yi ci loo xamante ne. tey ci na mën na gën a wàcc sax kay. mën na gën a wàcc sax ba ci mhm. ba ci parce que léegi pratiquement même xale yi nekk ci kër yi sax. voilà jàng dugguñu école. commencé nañoo dugg digital. mën nañu ubbi téléphone six mois rek mën nañu yor téléphone. Mhm. at fii ak ay at ñëw comme ça ñu mën a tolloog ak yeneen ak yeneen dëkk parce que duñu ne dañoo nekk en retard mais je ñoom li li ñuy yëngatu ci mbirum euh, scoutisme nga xamante ni dafa nekk lu am solo waaye formation yi yéen a koy def seen biir formation yi ngeen amal. ci pàcc bu ci nekk. formation yi ñoo koy def parce que formation yi aussi il faut comprendre que programme scout Euh, bureau mondial moo ko moo ko structuré parce que aujourd'hui tey bu nekkee da ngaa bëgg a encadrer ay xale am na formation yooyu def mhm. benn ba ñaar ñetti formation ñi certifié le que ne kii kat chef scout bu baax la bu mun a encadrer xale bu mun a former la mhm. et on a même des formateurs au niveau national maanaam tey am nañ ay chef scout yi nga xamante dañuy jógee Sénégal dem au niveau international ñu former leen et d'ailleurs ñoo ngi préparé conférence mondiale du scoutisme mhm. a am Égypte et xamante ne war nañoo jógee tey Sénégal pour dem pour dem ci à partir du Égypte uh-huh. donc j'en profite aussi di di di di di loxo rek ministère de l'éducation parce que ñun aussi certes on est dans une formation informelle uh-huh. mais ñaan nañ tey ministère bi tey formation yi ñuy def ak euh, diplôme yi nga xamante tey ñu ngi koy jox suñu chef scout ñu mën cee dimbali ñu naan valorisation des compétences maanaam tey boo amee tel diplôme tey état mun ko reconnaître ñu mun ko valoriser comme ça mu waaw mu mun laa njëriñ feneen mais yéen est def ngeen ay jéego yi tamit ci mbirum euh, def nañ ci ay jéego parce que ñu defee assemblée générale am mhm. yaa ngi doon wax sànq yi ngi ci 14 régions yëpp ban région nga jàpp ni daanaka scoutisme bi mu ngi Euh, région bi gën a dox bien évidemment Dakar la parce que moom moo ëpp moom moo ëpp nit mhm. mais pratiquement dans toutes les régions on a des jeunes scouts éclaireurs mhm. mais Dakar la gën a dox parce que Dakar moom moo gën a ngande Dakar aussi moom moo ëpp ay districts mhm. parce que région rek on a quatre districts alors que dans euh, am na solo Boubacar euh, Gakou ñoom moom ñi nga xamante ci wàllum scoutisme nekk coordinateur bi ñu dalal ñu dalal ko tey jii ñuy waxtaanee mbirum scoutisme gannaaw fan yi nga xam ni mujj bi euh, Babacar euh, ñu ngi lay jaajëfal lan moo nekk kàddu gu mujj geeg ci mbirum scoutisme ak rawetina message bi nga xam ne danga koy euh, lancer ndaw ñi. je pense que aujourd'hui ñun li ñuy lancé état mooy ñi gën a jàppale mouvement de jeunesse yi. Mhm. parce que ñoo ngi wax ay crise des valeurs. Mhm. ñoo ngi wax ay problème éducation ñoo ngi wax ay problème formation. Mhm. et je que tey bouclier bu état am pour mën a résoudre problème yooyu yëpp. mooy les mouvements de jeunesse. donc nag bu ñu nee mouvement de jeunesse limité wul juste ay association de quartier wala association mais dañoo war a tey teg ay politique ak programme yi nga xamante Mhm. mais bu ñu ko bëggee mettre à l'essai au niveau national ça pose des problèmes parce que on est association à but non lucratif donc amuñu xaalis bi nga xam tey tey mën nañoo permettre tey ñi mettre à l'essai notre programme mais état tey rien na ko rien dara terewu ko tey mhm. mu xool programme bi nga xamante ne méngoo ak moom lu muy def mu accompagner association ñu mettre ko mettre à au niveau international euh, par exemple tey euh, Future de Future programme boo xam bëgg a def la ngeen ci xalaat ñoom dañ ko intégré ci seen seen programme xam ne lii kat pour ndaw ñi la alors que ñoom ñoo ngi ci même même programme boobu noonu. donc nguur gi ñëw nañu ci ñëw nañ ci convergence bi mais forum bi on l'a fait euh, en partenariat avec la plateforme des acteurs non étatiques ak seen benn programme bu ñu naan Feed the Future ak organisation jeunesse développement ONG jeunesse développement bi nga xamante ne tey association des éclaireurs éclaireurs moo ko moom. am na solo euh, moom euh, Babacar nekk koo xamante ni mooy coordonnateur bu. Euh, convergence euh, intergénérationnelle ci mbirum euh, éclaireuse ak éclaireur ñu doon waxtaanee mbirum scoutisme ñu ko daan gis ci l'école yeeg ak léegi nga xamante ni daanaka lim bi demeetul noonu waaye mu ciy dox jéego yi nga xam ne ñoom ñi ngi ci di ci liggéey jaajëfal nañ la ci teewaay beeg waxtu waxtaan week ak ni nga farañ fàccee ci mbirum scoutisme jaajëfal nañ leen